waaw jafe-jafe yi ni jànkonte ci tali bi bari na ndax chaque jour ñu ngi koy dundu mooy lu ci nekk maanaam comme ñunu dañu nekk ci société boo nga xam ne nit ku nekk ngay dajal ku nekk ngay yab di nga yab ku neex deret di nga yab ku naqari deret di nga yab ab dof di nga yab nit des fois nga yab nit ku nga xam ni tey bu lay arrêté comportement bi muy yor su sañsee ba ñëw arrêté la mais bu communiquer rek maanaam nga xeeb ko taxi moom mi ngi yàqu parce que man depuis quatre-vingt-dix-neuf ba léegi maa ngi taxi presque léegi mu am vingt ans yu ma taxi mais par rapport ak bu njëkk la nga daan am bu njëkk léegi mënatoo ko am parce que léegi particulier ak ñëpp daanaka dañuy def transport kalandoo yi ñu ngi si biir dëkk bi foo jëm te ñooñu tamit pour nga jëlee leen fi du yomb parce que ay kilifa ñoo leen moom. waaw damay dawal taxi waaw. lu met lu metti la ñuy jànkonteel parce que pousse pousse yi da ngay gis koo xam ne day takk scooter itam nga di ko klaxonné du la dégg borom borom mobilette itam borom scooter itam dañuy bëtt sens interdit ngay wax ak ñoom ñu lay sànni loxo ak di la saaga. non non non non non duñ ko respecté dañuy ñëw rek burle wala ñu jaar ci sens interdit bi dajeeg yow yow yaay yow yaay góorgóorlu rek pour moytu leen. rond-point Petersen télé bi jëm service des jeunes Assane Ndoye moo ko jox marché ambulant ba kenn Alioune Ndoye Alioune Ndoye maire. mooy maire mooy beebu Dakar plateau moo ko jox ambulants yi ba pour pour sax moo fa kenn moo faa jaar li commencé ci rond point presse ba keneen ngay àgg sa réduction moo ko jox ñu jaay ko ba ñu ñu lal ko dafa dafa jaay te ab tëli la bu oto yi war a jaar boo ñëwee ba rond point presse da ngaa war a tourner à droite jël ko yéeg génn ji service des jeunes génn ji El Malick tëli boobu rayé nañ ko te moo ko joxe. waaw d' accord loolu dinaa ci egg si parce que avant nga may kii man wax naa booy ja booy booy jàdd à droite noonu booy jàdd à droite noonu rond-point Petersen kenn mënu faa jàdd bu métti. te dinaa la xamal lu bëriwul tey dawalkatu taxi ngay gis ci tëli bi yëpp duma ni ñëpp la ndax ni loxo yi wuutee juróomi baaraam yi ni ñu wuutee noonu la nit ñi wuutee jànguñu waaye am nañ expérience am nañ xam-xam te koo ci gis responsable la. am nañ benn problème muy problème mu syndicat wax dëgg yàlla ba léegi dañ ci am problème parce que syndicat bi nga xamante ni tey su waree kaasal chauffeur si mooy transport bi bu leen waree kaasal ay point yu am solo état bi gis ko ci pet bu dee lu leen arrangé wut ñu wax ak moom ci pet mu bàyyi mu sedd ñun am nañ boobu problème parce que tey jii bu fekkee da ngay xeexal nit ki da ngay dem jusqu'au bu bañ a jël ay yenn guerre yeeg yenn yi quoi parce que dañuy gis ne képp koo xam ne da nga ne syndicaliste nga nga taxaw fii di xeexal chauffeur si li ñuy xeex liñ lay wax suñu doléance liñ lay wax nga war koo xeex daanaka dara du ci saafarawu bon dañuy féetewoo muñ rek comme ni sama waa ji wax bon ci benn côté des fois ñu noggatuñu fi des fois tamit yenn chauffeurs yi dañuy tooñ xam nga des fois yenn chauffeurs yi def dawal dawal yoo xamante ni jaaduwut. dëgg la mais souvent ñun ñi nu gëstuwuñu seen bopp lañ fi nekkal. ndax tey jii man maa ngi transport dong lay dund moom laa xam mais tey sama ministre xaw ma xaw ma ko jéem a la wàcc ci terrain bi ndax xam ñi nekk ci société am yan genre nit la yaa ngi dégg keneen ka ca des mooy ki nu jiite nekkal ñu fa taluñu ñun problème boobu lañu am ñi nu jiite ñoo nu talul. loolu loolu kay du jeex am na ñoo xay ni dañuy sol ay kilote. police da leen di jàpp sax bu ñuy dox di ñëw sax police bi da leen di kii quoi mais am na nooy comportement rek bu la police arrêté sax bu xoolee sa comportement rek da wax demal wala mu xool la rek xam ne yow mii eh, nit ku baax parce que taximan dafa war a yiw warul ruggi tubéy ji warul di sol lu gàtt dafa war a set. voilà jàng ñu bëgg a tari. loolu lool dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa bari ci taxi mi léegi da ngay koo xamante ni tey jii bon fee la nekk ci benn koñam di avancer di arrière di avancer di arrière wu ñu dem wut transport. ñëw xëy benn bis yor taxi di wëndeelu léegi di def leen lu ne ñu boole taxi yëpp na ñooy def lii fekk na or ko kooku dafa xamul. am na ñoo xam ne ñu ngi taxi te bokkuñu ci taxi sofëri kalandoo encore tam yem yemuñu seen place am na ñoo xam ne particulier la ñu yor jo particulier la ñu yor de jóge seen kër war a xëy client yi client yi ñu war a jël ñun taximaan yi ñoom ñoom ñoo koy jël. ab client laa yeb léegi mu ni ma jaaykat dañuy cotiser dem di ko jox di ko jox action maire bi léegi léegi maa ngi soog a ñëw. ambulants yi dañuy cotiser di ko jox waa mairie bi pour ñu bàyyi leen foofu ñu lal. samedi bii rek dama ñëw ba Sandaga benn femme arrêté ma ma taxaw mu ni ma asalem ca programme bu fekk boobu asalem am na benn programme jàng bu fa nekk ma war ko yóbbu ma ne ko ñett téeméer mu ubbi yéeg mu ñëw ba asalem mu ni ma cent cinquante laa yor fanweer ma xool ko comportement ma andi ko ba ca programme mu ni ma aussi jëw ma fii. ma daal xaw a jéngu gàddu posetam naa ma poset bi téléphone moo ci nekk doo ko jël bu ma ko gestuwaatee yow mi ko fekkewul gestu nga ko siiru mooy comme ça amoo embossement amoo sa oto bopp ngay ñëw ci sa gaay suñu xëyee ba bëccëg jot ñu jox la nga gont boo gontoo ñëw indi leen seen oto loolu mooy siiru waaw versement bi comme journée bi dix mille la ñoom bu ñu xëyee ba bëccëg jot ñu am benn cinq mille bi yow mi gont si ngoon gi nga indi leen benn cinq mille bi soxla laatal leen seen gasoil loolu mooy siiru. mais taximaanu Serigne tubaay nag moom ma am lu ma ci dugal moom moom yoon wi ñuy am moom bu ñu ñëpp defat moom taximaan yi dinañ xamante parce que ñoom wut nañu kii boo xam ni képp koo xay ci ci daayira boobu nga bokk rek wutal na la benn taf boo nga xam ni buñ la gisee xàmmee la. duñ ko am parce que tey man boo ma gisan tey jii may liggéey guddi ma benn yat wala benn paaka wala benn jaasi ci oto bi yow ngay am dëttani boo ma arrêté laaj ma lii lan la fiy def bu ma la ko expliqué doo ma sax gëm te pourtant booba déewuma ko dara damay aar sama am na ñoo xamante ni tey dangay ngay ñoom ñu bind ci seen oto débutant mais débutant boo xamante ni yow am nga permis wan sayto ne mën ngaa dawal mën ngaa euh, kii xam nga kot looy binde débutant kon c'est que cest à sa dawal baaxul yooyu yëpp parce que dañuy nekk ci ci yoon wi tardel nit ñi embouteillage bi yooyu gën a téye embouteillage bi auto yi nekk si si si tali bi di tourner du ñu mën a dawal bu baax koñ buñ bëgg a jàdd nekk fii di manipuler waaw di ma yooyu yooyu mooy gën a sonal nit ñi ci embouteillage bi yooyu moom nañ ko waxta dee xam naa ñenn ñi nag buñ ko déggee du leen arranger mais tamit lépp arranger kenn ko nekk mënul ne quoi. taximaan dafa war a yiw waaw dafa war a yiw. mais warul di sol yére gàtt warul di def loo xam ne daal gënul taximan daal ci gàttal dafa war a yiw léegi nag li ñuy dunde mooy di moytu cey muñ ñun ci muñ lañ dëkk non man du caage ne que jur guddi laay dawal guddi gi par weekend lay doon ajuma samedi dimanche mais yeneen jours yi ci des yëpp su ma deful dara nekkuma ci dara damay xëy dem liggéey ñoo développé yëpp quoi mais suñu sañoon yu mel nii di gën a yaatu ñoo ngi leen di sant nag bu baax di leen gërëm parce que lii euh, bon lu am solo la li ngeen def nii lu am solo la parce que yéen a ngi liggéeyal askan bi kon donc yàlla na leen yàlla fay bu baax te ñëpp war nañ leen a gestu di xool seen sit bi bu baax bon di ci dugg bu baax tamit xam nga waaw merci.